ñenn ñi ragal ni que euh, régime yi nga xamante mooy régime Macky Sall su moytul dina euh, baat record des euh, détenus politiques alors toujours rek damay dellu siwaat parce que quand sama âge may na ma mhm. ak sama activité politique ma fekk lu bari ci Sénégal mhm. détenu politique moom yàgg na fi je ne l'encourage pas mais jamono yi li am monsieur le ministre doy na waar defal lànk rek mën naa ëpp bii mën naa ëpp bële on a vécu le régime du PS gis nañu ay détenus politiques yu dul jeex. mais est-ce war nañu dundaat loolu. monsieur le ministre waaw soxna si bàyyi ma eggale. allez ma eggale xam nga man du ma justifier parce que man du ma jàkkoor ci ñi jàpp doomu mais damaa bëgg ñu def quand même ne que lii tàmbaliwul tey tàmbaliwul tey PS PDS ba léegi jàpp nañu ay nit ampleur bii am. man neexuma et je ne l'encourage pas mais li may bañ rek ñu jàppale détenu politique ren la am ci régime bii la am mën naa la gën a bari pour des raisons diverses mais du léegi la commencé. Mhm. te man bu ma sañoon ñu arrêté ko puisqu'on parle de dialogue loolu ci point yi la bokk ne ñëpp wéer ngànnaay yi ñiy wax loo xam ne dañ leen di jàpp nañu ko bàyyi. ñi ñuy toog tong tongal parce que dañoo nanga ma question politique ñu leen topp nañ ko arrêté. Mm-hmm. de deux parties dama bëgg rek ñu ñu ñu jël benn parti cest à bu ñu ko defee aussi du parce que ñu jàpp aussi. Mm-hmm. Euh, jàpp ñu ñëpp. mais ñiy jàpp quand même bari nañ bari nañu. waaw mais jàpp ñu ñëpp. kon. pour nga wax sa xalaat rek pour nga wax sa xalaat sax. non non il faut dinañ dellu si loolu mais dinañ dellu si loolu waaye dama ne. jàpp yu ñëpp. Mhm. am na ñoo xam ne def nañu leen jàppe est-ce que jar nañu jàppale wala jaruñuy jàppale kooku mën nañu koo waxtaane mhm. mais li may wax mooy lay arrêté loolu mooy de part et ku nekk xam fi nga yem aussi. d'accord mhm. waaw. alors du nekk journaliste nga. lu la neex wax. dinaa ci dellu si que man. j'étais victime de ça moi-même. waaw donc. <laughs>